asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki julit yi bokki taalibe amaan amaat nañ mbégte ci toog ci jataay bii nga xam ne jataayub sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa la yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér mu yëkkatiwaat ndigal lu jëmaat ci mboolem yoonu murit wépp jaarale ko fam ko baaxoo jaarale mu di ki mu jox kàddoom mu di cheikh Mouhamadul Bachir moom cheikh Abdoul Khadir ndigal loolu nag cheikh Mouhamadul Bachir fas yéene yëkkati da ci ànd ak waa daayira Muxadamatul Xidma bi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ju mag ji ci sëriñ Afiya bu soo jiite ko te ndigal loolu jaar ci jumaa yi ji jàll ci mboolem yeneen jumaa yi ak jàkk yëpp waaye ngir bañ a guddal dañuy bàyyee kàddu gi cheikh Mouhamadul Bachir moom cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne. moom la sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa jox kàddoom mu fas ko yéene yëkkati jëme ko ci mbooleem jullit yëpp ak taalibe yëpp ñu maa si déglu Cheikh Mahamadul bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala wa mawlana wa ala alihi wa sahbihi wa tamkin jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi fii ci kër Cheikhul Khadim di yëkkati suñu kàddu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Serigne Touba ci kaw suuf ñuy ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak ñu ñëw fi ci ndigalam nag ginnaaw bu ma wooloo woolu waa daairatu muqaddamatul xidma ci njiite Serigne Afi Boussa al imam bi ñu agsee itam Serigne bi yëkkati ay kàddu wax ndigal li nga xam ne bëgg na ko ci joxe na ko ci ndigal yi ci dëkk bi ci jàkka yi ñu war koo saytu war koo taxaw kon li nga xam ne santaane na ko ci ginnaaw bu mu ci joxee ndigal jottali leen ko sëriñ Afi Bousso dana ci ñëw ak ñu ko ci war a àggaleel ngir leeral leen ni nga xam ne la ko sëriñ bi santaane ñuy ñaanal na bu baax sëriñ bi mu yàgg fii te ànd ak wér ndax li ma ko wax léegi rek li ëpp solo ci li nga xam ne suñ borom defal na ko ko mooy ku gis jëmmam rek mu delloo la ci yàlla suñ boroom ndax farlu ga ci jaamu yàlla ak jël léppam jox ko yàlla suñ boroom te bokkaaliwu ci dara waaye jël léppam itam jox ko Sëriñ Tuubaa laxasaayu doonu taalibe bi ku mel noonu nag kon Serigne Touba dafa fàggul ak njabootam ñi nga xam ne ñoo ko fi nekkal ku fi agsi rek mate ku sëkk moom mii nag yàlla dafa def ku fi mas a jaar rek mu laxasaayu euh, doonu taalibe bi ba làq sa ngërëm ba tey muy Serigne Touba bi mu doonee Serigne Touba ba nageen itam ku ne xam na ne lépp loo xam ne mu ngi koy santaane génnut ndigali Serigne Touba yi muy kilifa gu bari yërmaane goo xam ne bu soñoon ñëpp ne ci jàmm bu soñoon fitna du am fenn moo tax itam loolu nga xam ne moom lay dund te di ko yëg ci diggam Sëriñ Tuubaa suñu borom faye ko ko ci biir xoli taalibe yi wa min saadatil fata xaysu xasat allah yurduhu fu addu si rasat moo tax Cheikh Mahmoud Muntaxa waxuma taalibe Sëriñ Tuubaa yi ak njabootu Sëriñ Tuubaa gi nga xam ne ku ci ne jàpp nga ne sédd na la ci sa bopp loo xam ne mosu ko am ci kenn ku ci ne jàpp nga ne itam sédd na la ci boppam loo xam ne séddu ko kenn waaye ni mu ko defee ci taalibe Serigne Touba yi def ko ci bokk yi noonu la ko def ci mboolem jullit yi la Serigne Touba waxoon ne fépp fu nga gisee ab jullit rek na ngeen ko def muy seenum bokk Cheikh Modou Mountakha loolu lay dund kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax mu yàgg fi te ànd ak wér ndax yitteem jëpp wax naa ko ko léegi ñun ñii kenn ku ci ne. yaa ngi jéem a góorlu ci sellal sa digg ak Serigne loo man ci sa digg sa borom nga di ko def waaye moom nag da caa sax te boolewu ci dara boolewu Serigne Touba dara amul benn bëgg-bëggu àdduna lenn loo xam ne mën ngaa wax ne Cheikh Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Ndaxa bëgg na ko ci àdduna xamu ko du kër du du dara léppam Serigne Touba la ko jox kilifa gu mel noonu bu ko yàlla def war nga saa su xëyee di xoolaat ci moom. te roy ci woon te xam ne lim lay digal mooy doon la gën ci yow te Serigne Touba kat bi mu sosee yoonu murit da koo tegal ay sart wa ma huwa salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari bokk na ci lépp taalibi war a def mooy bu sëriñ bi digle bul xool la gën a jub ci sam xel ndax boobaa topp ki ngay topp sëriñ bi it doo xamante lu muy jëriñ ndax sëriñ bàkk bu soo waxtu dama ko fàttali moo ko waxoon moom mii itam nag ndegam moo dox suñu digg ak sëriñ Tuubaa lum ñu digal rek dañ ko war a def wa tarkul ictiraadi mutlaqan walaw bi baatin alay fi ma xadaw sëriñ Tuubaa nee na taalibi balaa ak taalibi mu wér du dingaan mukk ab sëriñam doonte waxuma dingaan ko dingaan ko ci bit waaye du ko dingaan ci biir te cheikh sëriñ bii kan nag ku ne xam na ne lenn loo xam ne ak matadi la wala lu ko nit war a mën a sikke yàlla def ko ci moom kon nag ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lu tànd ak wér dëppook aaya rek wa ma kaana li muminin wala muminatin isa qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum al xiyaratu min amrihim loolu suñ borom santaanoon ci suñ digg ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom mii nag fi mu toog tey moo doon Serigne Touba te Serigne Touba moo doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon lépp lu ñu wax rek nañu xam ne oma yantiqu anil hawa kon nag ñu jox Serigne Afi buso mu àggale kàddu yi li nga xam ne war na ko ci wax bismillah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala ashraf alambiya almursalin wa alihi wa sahbi wa xadimi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bokki julli ñi setaan ak di dégg ñu ñëpp di siyaare ñëpp di jiital suñu nuyu ak suñu ziyaare ak suñu ndokkeel ak suñu bal aq cheikh Mouhamadul Muntaqa wara di ko ci loxoy cheikh Mouhamadul Bachir mi ngir mu tegal ko ci loxo di sant yàlla bu baax di yeesal sunu jaayante ak Cheikhul Khadim di ñaan suñu borom saxal nu ci ak taalibe ñu dund ci faatu ci yow sax ci ndigal ba faw sëñ bi dana woowoon nag ngir doon dolli ak cantam ak yeesalam ndigal ci taxawaay ci liggéey bii mu dénk muy jumaa ji mu muy rafetlu taxawaay nag di soññee itam nag ci ñu dolli taxawaay ni mu gën a mate nu fa sëriñ ko defee noonu yi nga xam noonu ko sëriñ bi sante di ñaan nag mbokki jullit yëpp mbokki tabi yëpp ñu jàppaletu ci ba sëriñ bi bëggee ko noonu mu ko santaane mu santaane nag aw melokaan la woo xam ni Cheikh Abdoulaye dana ko leeral léegi incha Cheikh Abdoulaye dana ko leeral léegi incha allah ni nga xam ne moo lañ bëgg ñu defee ko noonu ko dégg ku ne ñu ñaan nga jàppale nu ci ban amee ko noonu ndax nun kat incha allah danañ ko jéem nañ ko sëriñ bi sante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 taxawaay bañ ci war a taxaw yépp luñ man danañ ko ci def luñ mënuti danañ ko ci jëm ngir sëriñ bi amee ko ni ko bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi kàddu yaa ngi noonu sëriñ tubaa ñoo ko jox sunu bopp waaye tënkuwun ko ci ak julli wala dem tool wala mu yónniñ ci marché ba sëriñ bi su mam ti saalu amrihi hay su warat mooy baatum ndigal fu la ko sëñ bi joxe rek nga war a defi kon nag sëriñ bi nee nañu mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi dem ci jumaa yi moo xam jumaa jum mën a doon muy jumaa ji Touba yi ak yeneen jàkka yi ak yeneen jumaa yi donte nekkoo Touba sax donte jàkka ja nga nekk nekkul ci réew mi te dégg nga ndigalul sëñ mun da nga ko war a jëfee ndax ndigal kat dañu wax ne bu ëppee du ubbi waaye bu manqué du ubbi kon képp kuy ñëw ci jumaa ji na nga yoraale ab masque bu dee kilifa gu munta yor ab masque te am kaala gu set moog masque bi ñoo benn ñoo yem mu kaalawu ak kaalawu booy dugg ci jumaa ji na nga raxasu soo aggee na nga laal sel sàppe yi diggante sàppe su ne ak moroom ba nit xaj na fa loolee wax nañ palaasum nit kooku nañ ko dindi ñu soreelu lu bu jumaa ji feesee ëtt bi fees kenn ku ci nekk xam na nag am nga yoolu yoolub julli ji ndax amoon nga yéene ba dañoo jumaa ji nga delluwaat ci jeneen jàkka julle ga war a gën a jege wala sa kër nga mën faa jullee ndigal loolu daal moo bàyyi ko ci sëñ Muntaxa jaar ci Cheikh Mahmadul Basir ñëw ci xidmatu daayira Muxaddamatul Xidma àgg ci mboolem taalibe yëpp ñoo ngi santaat baax di gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu